jërëngeen jëf mbokki internet yàlla Sénégal gannaaw bañ leen nuyu rafet lu ni ngeen di toppee suñu chaîne bi ñu informé wu lépp lu xew ci réew mi ak ci bitim réew ak live bu Adji ak kii di Californie moom Adji Sarr nag ah, gëjoon nañ koo gis lool mu mel ni nag à travers benn live mu nga doon waxtaan rek ak kii di Californie ci rek na nga xamante ni sax daanaka moom daal dina koy raare rek waaye nag yeneen point yoo xamante ne daal dina koy soulever rek ci bile live bokk na ca liaison digganteem ak kii di Bassirou Diomaye Faye ma nga xamante ni sax daanaka moom mu nga wax rek gannaaw la nga xamante ni rek moom lañ daal di bokk muy séeréer gañu daal di doon rek mu yëkkati rek ab liaison waaye nag mu mel ni ñenn ca ñi nga xamante ni rek ñu ko doon suivre bi la live ak commentaire yi nga xamante ne daal nañ ko cay amal rek ku ne xam na antécédent yi nga xamante moom Adji Sarr daal na koy am rek ak leader bu parti bi di Pastef di Ousmane Sonko ak coow la nga xamante sax moom la daal di jur nag waaye gannaaw a ya mu daal di yëkkati rek ci diggam ak Bassirou Faye daal di teexel ci ñenn ñi nga xamante ni a daanaka ñu nga doon suivre bii la live rek nga xamante a moom Bassirou Diomaye Faye nag kii di Ousmane Sonko moom moo ko daal di tab rek waaye moom ak di Bassirou Diomaye Faye ñu daal di wax ci la vraie histoire li waral Boucher Ketchup ak Wally Balago Seck duñu jaaroo a moom Boucher Ketchup nag dañuy gis à chaque fois muy bi rek euh, promouvoir yeneen up artiste euh, buñ ko waxee sax ci waxu Wally Ballago Seck du ca nango addu rek waaye mu mel a euh, kii di Mbaye Sy Ndiaye nekk batteur ca Wally Ballago Seck daal na rek yëkkati ay kaddu jëmal ko rek ci la nga xamante ni sax daanaka moom moo daal di sabab rek li ni mel moom Mbaye Sy nag bu ñu ko dégloo rek ci ay kàddoom mu wax sax naan kii di Boucher Ketchup vrai fans bu Wally Ballago Seck la woon waaye nag dafa am foo xamante ni sax daanaka fa lañ daal di jaar rek waral ba moom Boucher daal di am rek lenn lu mu daal di téyal Wally Ballago bokk na ca buuse benn jour nag mu nga daal di a ca soirée Wally Ballago Seck foofa ca penc mi waaye nag na mu débarqué ca soirée ba dafa daal di rek tiital la sax ñu bëri gannaaw ba nga xamante ni ba mu yéeg ca kaw seen ba artuwul yéeglewul benn yoon ñoom ña nga xamante ni sax ñooy waa Ramadaan dañoo daal di rek tiitoon ca na mu débarqué ci bile seen ni li mel nag daal di tax ba Wally Ballago Seck daal di am ab réaction rek di ko artu rek di na nga xamante ni rek noonu la yéegee ca teen ba waaye nag ci Mbaye Sy Ndiaye ak kàddoom mu nga sax naan kii di Wally Ballago Seck xàmmewul woon Boucher Ketchup li ni mel nag daal di sax doon loo xamante ni rek moom la Boucher Ketchup daal di téye rek ci xolam jàpp ne jour boobu kii di a Ballago Seck daf ko daal di rek toroxal waral ba moom nag ba mu jógee ci bile soirée dafa daal di woo Mbaye Sy Ndiaye rek wax ne kii di Wally Ballago Seck daf ko daal di humilier waaye Mbaye Sy nag ci ay rafetalam rek muy wax naan kii di Wally Ballago Seck xàmmewul woon sax Boucher Ketchup loolu nag mu doon loo xamante ne moom ma ah, Boucher daf ko dal di téye rek ca xolam ba war waral nag ba moom ah, promouvoir wala sax wane yeneenu artiste moom moo ko daal di gën a rek waaye teewul ah, moom Mbaye Sy Ndiaye mu wax rek ne kii di Boucher Ketchup Wally rek la bëgg Wally Ballago Seck moom la ñuy des ba tey mu mel ni nag yenn ci ay kàddu jóge ca rek kii di Adama mu jàpp ne sax ne entourage am dafa daal di doon loo xamante ni sax daanaka dafa am ab coppite rek waral ba ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ay xaritu démbam liggéey jël seenu cachet dem ñibbi rek la ñu seq ak moom gannaaw ma xamante ne dafa daal di rek ah, ni sax jàpp nañ ne ay xarit lu bees lañ ah, daal di sax cité ka nga xamante moo di Mody Badiane may fecc katam jege ko lool moom muy wax rek naan ah, ba noppi jël cachet ma dem xamatul wala sax yëkkatul lu bëri rek a ka nga xamante ne moom moo di Wally Ballago Seck yi lee kàddu nag damu daal di koy yëkkati rek jëmal ko ci Wally Ballago Seck nga xamante ni sax jàpp na ne dafa daal di am coppite Thiat Seck regretté wul benn yoon kàddu ya nga xamante ne na ko a jëmal ko ci Wally Ballago Seck moom nag mu a ne kii di Wally Ballago Seck woto ba nga xamante ni moom la ko daal di may sax baaxul dara teewul moom mu ngi daal di ànd ak ngorom rek te tamit di santaat bu baax a baax Wally Ballago Seck ak teraanga nga xamante ne defal na ko ko waaye nag mu ngay wax sax ca woy ba nga xamante ne moom la fentaloon Wally Ballago Seck ba envoyé ko Youssou Dieng mu mel a bile a ba léegi rek kii di Wally Ballago a réagiru ci bu koy woo du ko jël vocal nag noonu waral nag ba moom a Seck nag amul lu ko neex dara ca Wally Balago Seck daal di génnaat sax day wax rek ne regretté wul benn yoon kàddu ya nga xamante ne daal na koy yëkkati Mbaye Kouthia il est victime d'un accident ci yoonu Xelkom ba mu mel ni nag li ni mel lañ daal di xamle rek moom mbay ku ca ñu xam ko bu baax a baax rek ci na nga xamante ne moom moo di réseaux sociaux yi ak rek yenn ci ay artistes yoo xamante ne day rek jël téléphone am di leen poser question doon tamit ku ñu ràññee bu baax mu mel ni nag moom dafa daal di rek defub choc ci yoonu Xelkom ba mu mel ni nag tànk ba sax dafa daal di damm xanaa rek ñu koy ñaanal prompt rétablissement groupe Akhlou Brick ça promet seen diggante ak Ngaaka Blindé ni ki le 2 décembre ñoom nag enflammé nañ diwaanu Mbour open press wala open show lañ ko mën a duppee rek en tout cas daal nañu rek def spectacle bu neex lool en prélude la nga xamante moom moo di 2 janvier ba ñu a rek janook kii di Ngaaka Blindé ñu wax ci leneen Eva nekkoon ca Pod et Marichou moom la ñu gis noonu rek euh, très bien habillé en vert a blanc séduire bu baax a baax ñi di ay followers am euh, gis nañu nag récemment nouvelle photo yi nga xamante ne daal na koy partagé rek ci compte am ay artiste nekk ca cœur brisé ragalul sol li ni mel gis nañ ko nag ak accoutrement yi nga xamante rek mu nga ko daal di def defut photo ba noppi partagé ci ay compte am choqué bu baax a baax rek internautes yi ci rek ak autrement ba nga xamante ni rek moom mu nga taamu rek di ko sol. wax ci beneen actrice Nabou ñu ràññewoon ko ca série Pod et Marichou gis nañ nag récemment nouvelle photo ya nga xamante ne daal dina koy partagé rek ci kontam moom la belle Nabou daal di doon une actrice bu ñu ràññee bu baax a baax fii ci Sénégal gannaaw défaite ba mu daal di am ci digganteem ak la dégg de mu mel ni nag moom Siteu ñii di fansam ya dañoo organisé woon rek ab sabar li ni mel waral ba moom champion ba daal di teew rek ci bile événement en compagnie ñu daal di explosé. fàttali bu baax a baax rek sabar ba nga xamante ne ñii di ay fan sam organisé woon nañ ko. diwaanu tugal lañu jëm commissariat bu Dalfortville ñoom ñoo daal di teg loxo rek ab père de famille moom nag ñu jàpp ne sax ne dafa daal di faat ñett ci ay doomam li ni mel nag gannaaw ñu dugg ci appartement ba rek fekk xale daal di ñàkk seen bakkan moom bañ ko daal di a tegee loxo sax mu mel ni enquête yi nga xamante ne def nañ ko ci rek daal nañu découvrir ne moom moom moo daal di faat rek ñetti doomam ci loolu nag dossier ba ca tribunal sax daal na rek révélé yeneen enquête yoo xamante ni rek daanaka defoon nañ ko ci moom ma nga xamante ni daanaka condamné woon nañ ko rek jëmoon ci wàllub violence conjugale mu mel nag li mel def ko daal di tàmm rek bi yoon nag ay doomam la daal di faat rek ñu toll ci ñett wàllub tàggat yaram la ñuy jeexalee wax ci bonne nouvelle pour Bamba Dieng moom nag gannaaw quatre mois mu daal di rek absenté ca pelouse mu daal di yem ak sax onze yoo xamante ne FC Lorient daal nañ koy def la ko waraloon nag blessure ba nga xamante ne amoon na ko rek waaye mu mel ni moom tuggaat na ca groupe ba rek gannaaw wax diir bu yàgg ba mu daal di toog rek duggul ca terrain ba mbokk yi safandoon ñu teewlu li la ñu naan loon seen acte du jour di la a jàmm di leen wax ngeen abonné suñu chaîne bi talaal notification bañ a raté dara suñu information jërë ngeen jëf.